صلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوالي الوالي بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maa أم am تيوي جتايبي jataay bi ci turu sëriñ Cheikh Jëmb mooy xalif général jiite kër Cheikh Ibra ci turam la ñuy jël kàddu kon may tàmbalee nuyu kilifa yi nga xam ñoo teewee ci jataay bi da ci jiital ñi nga xam ni ñooy suñuy kilifa nun yëpp di jabootuk sëriñ bi ci Ahmadul Xadim xam naa daanaka dañuy tudd sunu kilifa sëñ Abdou Lahad Gaynde Fatma wala sëñ Abdou Lahad soxna Baaji ki nekk valable na ndax yëg naa ni moo fi ñëw sax jiite délégation officielle waaye buñ ko dee xool day mel ni ñaari tànk la ñëwee ndax itam njabootu sëriñ bi la kon sëñ bi ñoo ngi lay nuyu di la ziyaare euh, di la di la sant di la gërëm ci taxawaay bi ñoo ngi lay yóbbante ci sëriñ bi sëñ Mountakha Mbacké mi nga xam ni moo fi toog jataayu Cheikh Ahmadul Khadim ci kilifa yoon wi ñoo lay yóbbante nga baal mu sax ay nuyoo ak i ngërëm ak i cant ak ko yeesalug njëbbal jële ko ci sunu kilifa di sëriñ Cheikh Jëmbu Fall mi fi toogal kër Cheikh Ibra di xalifa kër Cheikh Ibra kon ñoom ñaar eh, ñaa ngi ñaan ñu yàgg fi lool te ànd ak wér ba kenn ku ci nekk li nga bëgg a liggéey sof ko ci seen maam doon liggéey te lépp di liggéeyal yàlla yàlla dimbali la ba nga mën a àggale la ànd ko eh, ñëpp ànd ko mbokki taalibe yi muy mbégteem suñuy kilifa di mbégteem sëriñ bi ci Ahmadul Xadim di mbëgteel Cheikh yi loolu lu ñu waroon a jiital la ci waxtaan bi sëñ Abdou Lakram moom sëñ eh, Modou Farimaka moom eh, sëñ eh, sëñ Afe Mbakke mi ngi fi di ko baax di ku bëgg lu baax di sunu wëllëre Cheikh Ibra ñor ko lool mu di ko doxee di ko waxe ci biir réew mi ak ci biti fu ne daje nañ fa ci àdduna bi waaye loolu lay gis ci moom kon sëñ bi ñoo ngi lay yow ñoo ngi lay ziare di la sant di rafetlu sa taxawaay di la ñaanal itam taxawaay bi nga fi taxaw taxawal ko sa kër maam eh, nga am ci pay te maam fay la Cheikh Ibra yëg ni eh, fonk nga bisam donc nga ak njabootam moom itam mu fayal la boppam eh, bu loolu weesoo xam naa noo ngi sant ñëpp rek di ziare ñëpp kilifa yi du ñu mën a lim ñëpp dama ci jukki ñaar ñi rek xam ni ñoom mën nañ noo représenté mën nañu noo représenté kilifa yi sëñ Cheikh Cokki mi ngi nii moom itam toog di kenn ci kër sëñ Mbàkke Fall di rakki sëriñ bi nga xam ne mooy sëñ Basiiru te yàlla baaxe ko ba bis bi moom moo koy amal at mu jot kon sëñ si yaax yooyu itam ah, li may wax mën mënoon nga koo wax yaa ma ko gën a mën a wax ndax nu ma mel ci sëriñ bi ba war ko représenté rek mel nga ci lu ni toll wala lu ko raw te suñu kilifa kon ñoo ngi lay siyaare bu baax a baax di lay ñaanal yooyu itam nga yàgg ànd ak sa waajur sa mag ji nga xam ne mooy sëñ Basiiru Fall eh, ba mu yàgg lool bokk ci ay jëwriñam ba li muy liggéey maamam Cheikh Ibra ngeen ànd di ko liggéey ba mu yàgg lool sëñ bi nangul leen su loolu weesoo ñoo ngi ñoo ngi nuyu euh, presse bi di bég ci seen taxawaay ñoom itam ndax bari na loo xam ne lii ci jataay yu mel nii dana mel nañu ko bëggee te ñoom ñoo koy ñoo koy ñoo koy melal ñoo koy amal kon yéen itam ñoo ngi leen sant ci turu sëriñ bi di ñaan sa borom rafetal seen ab liggéey fa mu toll euh, su loolu weesoo nag euh, ci gàttal euh, maa ngi seen léegi sëriñ Saliou sëriñ Saliou Ndiaye moom itam manees na ko tudd ci nuyoo bi ndax jëmm ju baax la nekk jiite mbooloo moom Cheikh Ibra ci bitim réew ci Italie kon bu ñëwee moom itam ci tuuru ñooñu eh, ñoo ngi koy nuyu ko seer di ko sant baax a baax a baax eh, sëñ bi nag ay kàddoom xam naa du du sori ndax li ci ëpp solo rek mooy lim bëgg seere daan ko seere te du jot ci di ko seede ci digganteem ak sëñ Bassirou Fall mi di rakkam di jëwriñam sëñ bi nee na day seedeel mbooloo mi ni jii ji di sëñ Basiiru bañalu ko dara tey ko dara denc lu ko dara ku ko fonk la ku ko naw la ku ko jàppale ci biir activité kon loolu lu ñu mat lu war a ñëpp dégg xam ko xam noonu la deme jataay bi xam naa tolluwaay bi rek moo tee mu ñëw teewal ko boppam loolu moo dal sëñ Cheikh Jëmb wan dañ leen di ñaanal rek saa borom yàggal leen fi wéral leen ba li ñu bëgg ñoom ñëpp ci bis bi ak bis yu demee nii ci liggéey bi yàlla defal leen ko ci gàttal loolu mooy li ñu fi waroon a wax rek daanaka gën a te am mbégte nag ci bis bi kiñ ko tuddee muy sëñ Daaru Asan Njaay di sunu maam ñu wax ko fii léegi ab délégation ñëw fi sunu mbokk jiite ko di kenn ci waa kër sunu wayjur sëñ usmaan Ndiaye di jarbaatu maam Cheikh yi kon loolu tax na sunu mbégte gën a yaatu sunu sunu xel gën a dalikam ci ni euh, liggéeyal yàlla rek moo am solo liggéey lu baax jëflal jëfal ko baax moo solo dañuy ñaari nit ñoo xam ne nii dañoo daje ci sëriñ bi waaye bokk gën a daje ci deret daje ci sëriñ bi eh, kenn ku ci nekk liggéey ba am ngërëm ci sëriñ bi loolu kon lu am solo la kon bu ñu wëlbati ko bis bii tuddee ko ko jagleel ko ko njabootam ñëw fi li li waralan ñu koy def ba jagleel ko ko njabootam xam nañu loolu moo tax ñu wuysee ni ñu wuysee mhm. kon lool itam ñoo ngi ci sant bu baax a baax di leen ci di leen ci gërëm mhm. ah bis bi nag ñëpp xam nañu ko bisub Cheikh Ibra waaye bisub Serigne Touba ndax Serigne Cheikh Ibra moom yëfam yëpp Cheikh Serigne ko moom waaye bisub taalibe yi la bis la boo xam ne day fàttali fu ñu toll te loolu moo war ni nit ki bu àndee kilifaam daf ko war a fonk war a ne ci gannaawam bañ koo yemaleeg dara liggéey ngir yàlla setal boppam sellal boppam sellalum njabootam ba bu ëllëgee lu ñu fi bàyyi ñëpp man cee jëriñ kon loolu moo dal Cheikh la bis la bu màgg ndax liggéeyal yàlla ba am ngërëmul ki nga ko doon ki nga ko ki nga jaaroon ci moom ngeen am liggéey ngërëmul yàlla ridwanullahi bis ba nga ko amee kenn ku nekk boo sañoon di nga am lu mel noonu kon nag bisu màgg la sëñ bi nee na mi ngi ciy sant di ci bëgg di ci gën a soññ rek soññ taalibe yi ci def lu baax nangoo am kilifa nango jub fexe ba kenn ku ci nekk foo taxaw rek ñu xam ni kay sa kilifa mat na kilifa nga nekk rooyu daay ci lépp la ki nga xam ne mooy sëñ Basiru nag ba tey eh, yàlla baaxee na ko boo wan ko bis bii xamal ko ko mu ko màggal ànd ko taalibe ak mbokk yi ak réew mi di nit koo xam ne kii itam ah tur wi rek ak la mu làmboo ak la ca taq te mooy sëñ Bassirou Fall alxuraan loolu doy na seede ci moom ku sell la alxuraan lu sell la waaye jëmm ji nga xam ni moom moo moom la tur wi lëkkaloo ak alxuraan itam jëmm ji sell la ku sell ci biir ni mu sell ci biti kon kooku royukaay la ah ñoo ngi ciy bëgg lool dama koy wax léegi laa koy wax ni ko te loolu xale yi xam nañu ko sax moo tax daanaka ñuy sawar ci ma jël kaddu ci turu sëriñ bi mooy dama ko ni yow man seenub cër laa ndax sëñ Moustapha Fall di sama waajur dafay nekkoon yàlla def mu am lante ak ay rakkam kenn ku ci nekk mu sedd la ci këram nga amub cër man nag seen sa bàyyi lañ ma séddee sëñ Mbàkke Fall lañ ma séddee mu yëlif ma yilifoon ma yilif sama wayjur yilif sax sama rakk ji nga xam ne moo topp ci moom te muy tamuy doomam kon man noonu laa fi mel ci kër gi xale yi itam loolu fonk nañ ko léegi lañ ma koy fàttaliwaat sëñ bi loolu la fàttali fa teg na ma foo xam ne fii euh, wax dëgg yàlla fu rëy la ci man maa ngi koy nettali léegi ne ko dafa am sa ñaari taalibe yu ñëw Cees doon gàmmo si gannaaw ñëwoo ba nga ba ñuy jóg di la tàggu nga digtal leen sant leen di leen nañ ñëw seet si ma ci cees bu ngeen ñëwee cees dem leen ci sëñ Mbàkke ngeen seeti ko mu ñaanal leen nga nuyu ma ko kon loolu tam euh, cër mënu ko weesu kon nag euh, ci gàttal rek ñoo ngi sant bu baax a baax a baax jottali kàddu kilifa dafa yombul mhm. waaye sëñ bi moom yéenem rëy na lool ci sëñ Bachir Fall Alxuraan yéenem rëy na lool ci taalibe yi mi ngi ñaanal ñëpp mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf Fall.